alhamdulilah xaqa xamdi wasalaatu wasalaamu ala rasulihi wa abdihi wa Moustapha wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan njëggal di ko ñaan ak sax ci njub ak sax ci jaamu yàlla ak bàyyi mooy yàlla mbokki jullit yi bokk na ci màndarga yi gën a wér ci yi lay tegtal ne sa koor nangu nañ ko mooy toftale di def lu rafet gannaaw ramadaan weer koor jàll na nga sax ci topp yàlla wattandiku mooy yàlla ci pas-pas ak ci wax ci ak ci jëf ak lépp loo xam ne luy merloo sa borom la loolu day wane sa koor nangu nañ yàlla na yàlla defal loolu borom bi tabaraka wa taala tagg na ñi nga xam ne dañoo dugg ci ngëm yàlla ba noppi sax ca bañ a dellu gannaaw inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu sax ci mooy doo jaamu yàlla tey bu ëllëgee nga bàyyi waaye da ngay saxoo rek jaamu yàlla muy weeru koor muy weneen weer kon jaamu yàlla gi sax gi ci la ñuy xamee nangu gi moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne julli yi juróom ak ajjuma ba ci ajjuma ak weeru koor ba ci weeru koor lu ci nekk day far bàkkaar yi dox seen diggante su fekkee ne boroom bàyyi na bàkkaar yu mag yi kon diggante weeru koor ak weeru koor jàppal ne bàkkaar bu mag waru fee dox fas yéene def lépp ba musal sa bopp wala dox sa diggante ak loolu ci di def bàkkaar bu mag ci diggante ñaari weeri koor ndax borom bi tabaraka wa taala mën laa jéggal say rëcc-rëcc li gën ci jëf yoo xam ne doomu aadama ngi koy def ci xeeti jaamu yàlla yi mooy lim fexe ba saxoo di ko def donte dafa néew donte dafa doon lu néew waaye def lu bari tey boo liggéey nga bañ a def dara loolu du doxiinu du doxiinu nit ñu baax ñi nit ñu baax ñi seenu doxin mooy lañuy def ñu jéem koo saxoo donte bëriwut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci xadis boo xam ne muslima ko génne mu ne yéen nit ñi maa ngi leen di dénk ngeen def li ngeen man ci jaamu yàlla yi gàddu leen li ngeen attan ci jëf ndax kat boo gàddooloo attanul fi nga jëm du sori sa dox du mën a gaaw kon da nga yanu li nga attan ndax nga mën a dem mu ne seen borom tabaraka wa taala du yokkat ci di leen bindal tuyaaba li feeg yéen yokkatu leen ci jëf kon booy dugg ci jëf nga fexe ba jëf-jëf joo xam ne doo yokkat ndax attan nga ko mu teg ci moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne li gën ci jëf yi nag mooy jëf ji boroom saxoo donte dafa néew donte dafa néew moo tax mu ne moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñoñam ay saxaabaam ak ñam yarak daaraam suñ masaan jëf-jëf dañ koy saxoo suñ masaan jëf-jëf dañ koy saxoo kon du ñàkk ay tomb yoo xam ne ci xeeti laa biire yoo xam ne danañ ko mën a jokkalante jataay bu demee nii ndax borom bi tabaraka wa taala mën noo baaxe nu saxoo suñuy jëf tomb yooyu bi ci jëkk laa biire gu jëkk gi mooy wattandikul seytaane gannaaw ramadan sonn nga lool kat ci biir weer wi yaa ngi doon góor góorlu ci koor gi doon góorlu ci naafila yi doon góorgóorlu ci njàngum alxuraan mi doon góorgóorlu ci def lu baax ak wax lu rafet ak téye sa làmmiñ ak tàggat sa bopp am ci yéen sax ndaw ñoo xam ne nekkoon nañ ci caaxaan moo xam di def lu bon wala nekk ci bidaak ay caaxaan yu tekkiwul dara ci biir weeru koor ak jaxasoog ñu baax tax ñu dellusiwaat ci yoonu yàlla ak ni mu ko bëggee loolu am na ci seen biir am na ci biir jullit yi ay ndaw yu jigéen yoo xam ne ba weeru koor di teru yëguñu woon sax na jigéen dafa war a muur waaye ci biir baaxu weeru koor ak jaxasoog ñu baax tax ñu dellusiwaat di muur seen yaram ci biir weeru koor kon effort am na ci biir weer wi su loolu amee nag yégal ne seytaane mi nga xam ne dañ koo jéngoon ci weer wi saa jant bi mujj ci weer wi soo xamal ne tinkeeku na jógaat na tàmbaliwaat na ab liggéeyam pexe mu nekk dana ko tàmbalee nag te mer lay indaale ndax dafa gëm ne lim liggéeyoon lépp ci xeeti yàq yàq pas-pasi nit ñi dugal leen ci biddaa dugal leen ci mooy yàlla dugal leen ci jëw dugal leen ci xeeti mbon dafa gëm ne liggéey bi mu defoon bépp ba jàppoon ne gañe na yàqaat nañ ko ci wenn weer mu gëm ne kon dafa war a laxasuwaay laxasaayuwaat fas yéene yàqalaat nit ñi liñ fàgg woon ci weer wi mu fas ko yéene yàq ca bisub iid ga sax wala bu ca suba saa fa du caagi ne rek seytaane mooy cëppeelu ci boppam ñu ne mi ngi nii mu di leen yàqal waaye fu ne la koy jaare dana ko jaare ci aw nit dana ko jaare ci sam xel ak say bëgg-bëgg ak sa bànneex dana ko jaare ci àdduna ju lay xëcc kon fu ne dana fa jaare ngir li nga fàggu woon ci weer wi moom mu fas ko yéene yàq boo dégloo ci jamono yi nga xam ne waxtu weeru koor ngi bëgg a jeex li ngay dégg ci yi ñuy yëgle ci xeeti caaxaan ci rajo yeeg yëglewukaay yi ñi di ko amal ci bisub kore gi ci boppam doo am sikki sàkka ci ne seytaane mi ngi bëre ngir li nit ñi fàgg woon ci aw yiw mu fas ko yéene yàqaat ci benn bis kon mbokk jullit bi ngir nga sàmm sa weeru koor fexeel ba yëg ne fan yu jëkk yi tegu ci weer wi ci bëre bu réy réy nga nekk góor góorgóorlul jafandu ba fexe ba fan yu jëkk yi ci weeru koor nga bàyyi ko xel weeru kori wi nga bàyyi ko xel bu baax yëg ne ci bëre nga nekk boo xam ne seytaane dafa fas yéene li nga fag woon lépp ci fan yu jëkk wi ci weer wi ci boppam rek mu yàqal la foofu te nit ki saa bu jógee ci jaamu yàlla goo xam ne dafa yaakaar ne kaaraange la ca war a jóge jële su tàbbiwaatee ci mooy yàlla boo wëttuwul rek li ñuy wax naagu dal ko te loolu mooy li yées mooy mu am yëg-yëgu ne ah man de li ma doon góorgóorlu lépp ndekete loolu aaruma sàmmuma ba benn bis rek jàll ma tàbbi ci mooy yàlla gu toll nii kon yàqule leenaa jeex na teggee fi far yàqu ba faw bëre boobu ci seytaane di bëreeg nit ki ci la bokk kon ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwatin ankaasa bu leen mel ne soxna su dëkkoon ci màkka nga xam ne bu xëyee rek dafay ëcc di raw di ñaw sir di ràbb su defaree defar defar defar ba lépp rafet bu jant bi soo mu daal di rocciwaat lépp tasaarewaat ko mu yàqu nee na bu leen mel noona kon jamono yi nga xam ne yaa ngi ci weeru koor yaa ngi góor góorgóorlu di def li nga man lépp yaa ngi tuub yaa ngi dëgëral sa ngëm yaa ngi ñaan yaa ngi julli yaa ngi sàkk sarax yaa ngi jàng alquran bul fexe ba loolu lépp ci benn bés nga xëy rocci ko mu tasaarowaat yàqu kon jafandul dëgërlul bu baax a baax ci sa boroom euh, dellu ci moom muslu ci seytaane borom bi tabaraka wa taala dana la jàppale da nga gën a dëgër seytaane dalay wax ne weer a ngi ni woo xam ne noppalu woo lekkoo naanu bu guddee daanaka doo nelaw yaa ngi ci jaamu yàlla yi kon sonn nga léegi nag kon man ngaa noppalu yëg-yëg boobu ba wëttuwul nit ki génne ci weeru koor am yëg-yëgu ne dafa sonn daa war a noppalu kooku musiba la nooflaay amul fii al imam ahmad ibnu hanbal fa ku ñëw laaj ko ne ko waaw ab nooflaay cafkaam kañ la ko jaamu yàlla bi di yëg kañ la nit di noppalu mu ne ko xanaa su tàbbalee tànkam àjjana foofa lay noppaloo waaye lu jiitu loola nee na ko noflaay amu fi loolu alxuraan wéral na ko borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha yow nit nit ñëpp lay waxal nag moo xam ab jullit nga wala nekkoob jullit ak ban dëgëre nga yor ci imaan waaye yow doomu aadama innaka kaadixun yow ku sonn ngay doon ila rabbika kadxan fa mulaaqihi da ngay sonn coono bu continuer ba kero ngay dajeeg sa borom kon noof laay amu fi ku ko fi seet yaa nara a sa bopp waaye fu ñuy noppaloo nekkul fii ci àdduna kero ba nga defee ne tey nga gën a kero la coono bi gën a metti ka ngay séen defe ne moo gën a noppali ñëpp fekk na boo waxee moom moo gën a sonn ñëpp kon nooflaay amul fii kërug so sonn la kërug fàggu la ngir nooflaay ba mën a nekk àjjana ëllëg yàlla nu borom bi tabaraka wa taala defal loolu tomb ñaareel bi mooy nit ki ne jiima góorgóorlu ba lu muy def kon mu bañ a def tey bu ëllëgee mu bàyyi borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moom moom weeru koor moo moom weer yi moom mi digle ñu woor jàng alxuraan naafil la moo digle yeneen jaamu yàlla yi ci des kon nit ñi niñ fonke weeru koor wi fonke ni jaamu yàlla gi fonke ni njàngum alxuraan meeg naafile yi nañ jiim góor góorgóorlu ba loolu ñu saxoo ko su weeru koor itam jàlle moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko istaqim fastaqim kama umirta na sax ci njub niñ la ko digale wa man maak ak képp koo xam ne topp na la kon ndigal la loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala la jóge ñëw ci yonent bi ak képp ku ko topp ci ne jullit bi dafa war a sax ci njub bul def tey bu ëllëgee nga bàyyi dëgg la nag nit ki melokaan wi nga xam ne moom lay dund ci biir weeru koor ngir mu saxoo ko faaw jafe la lu jafe la ndax weeru koor borom bi tabaraka wa daf koo def ngir nit ñi ragal yàlla laallakum tattaqoon kon saxoo ko faaw lu jafe la waaye fexeel nag ba bul wàcc bul wàcc gannaaw weeru koor nag ba tàbbi ci biir musiba yi ak mooy yàlla yu mag yi bokk na ci yi dimbali nit ki bu weeru koor jàllee mu mën a continuer doon jaamu yàlla buy góorgóorlu tomb yi bi ci jëkk mooy fexe ba saxoo ci di julli julli mbooloo te saa bu julli gi jotee nga def ko ci waxtoom fexeel ba sase sa bopp loolu góorgóorlu ci juróom benni fan nga woor ko ci weeru kori wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ku woor weeru koor ba noppi teg ci juróom benni fan mel na ne ku woor àdduna jépp mel na ne ku saxoo koor faw maanaam sa tuyaaba noonu lay toll kon loolu lu mat a bàyyi xel la ku mën a doon ku nekk boo wooree ba wari nga fexe ba am juróom-benni fan ci biir weeru koor wi su mënee doon ci fan yu jëkk yi te mën a toftaloo loolu mooy li ci gën su mun mënta toftaloo it noo ko mën a woori ci biir weeru kori wi loola lu baax la su fekkee ku yori bor la nag la gën mooy mu fay ay borom ba noppi door a woor loola door a woor juróom benni fan yooyu ñetteel bi mooy jéemal a lu saxoo sant sa borom tabaraka wa taala ak jéggalu ko ndax moo la may tawfiqi fekke weer wi moo la may tawfiqi fekke weer wi ñu bare bare amoon nañu yéene fekke ko te bi nga ko fekkee ba noppi moo la may wérug nga mën koo woor mën a naafil la mën a def yu baax yi kon loolu lu ma ta bàyyi xel la ñeenteel bi mooy bari looy ñaan borom bi tabaraka wa taala baaxe la ba fekkeel la weneen weer ak yeneen i jaamu yàlla te booy ñaan bul fàtte sa képp ku la jege koo xam ak koo xamul ak saw xeet muy xeetu lislaam borom bi tabaraka wa taala dëgëral leen dimbali leen jàpp ndalal leen ba fitna yeeg metti yeeg tànk-tànk yi nga xam ne ñu ngi koy dund borom bi tabaraka génne leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jullit boo xam ne dana ñaan yàlla ak ñaan ñaan boo xam ne bàkkaar nekku ca luy dagg ak bokk nekku ci lu dul borom bi tabaraka wa taala nangul ko ñaan googu mu ne bu koy nangu nag benn ci ñett yi noonu la ko ci nangoo benn bi mooy lim ñaan ñu daldi ko koy may mu ko ñaan googu mu ne nag benn ci ñett yi noonu la ko ci nangoo benn bi mooy lim ñaan ñu daal di ko koy may mu teg ci bëtam gis ko beneen bi mooy joxuñu ko ko fii ci àdduna waaye ñu dencal ko ko ba ëllëg ci àjjana ñu fayee ko mu tàbbal ko àjjana loolu itu baax la wala gisu ko fii gisu ko fële waaye fekk na musiba mu rëy ngi doon ñëw ci kawam te yëgu ko ci sababus ñaan googu ñu ne ah, lii kat suñ ko ko joxee it bu musiba mi accès da leen di boole faagaagal ñu fegal ko musiba moom kon ñaan moom ala kulli xaal ginnaaw jaam bi boroomam lay ñaan tàllal na koy loxoom sellal na ñaan na na jàpp ne ñaanam nangu na ko benn mu jot lii wala ñu dencal ko ko ëllëg wala ñu fegal ko ci musiba moo xam ne fegal ko moo gën ci moom lu dul moom jéem a góorgóorlu nag sax ci jàng alquran yëg ne alquran ci weeru koor lañ ko wàcce waaye ci weer yépp lañ ko mën a jàngee fexeel ba bu weeru koor jàllee nga tàmbaliwaat beneen kaamil bu bees yor sa waqf woo xam ne bis bu ne fooyam ba ëllëgee nga jàll saa bu kaamil bi wàccee nga tàmbaliwaat ak lu mu néew néew baax na donte da jàng fukki aaya ci bis bi sax baax na bu ëllëgee nga tàmbalee fa nga yemoon bu yàggee boobu kaamil jeex nga tàmbaliwaat beneen loolu lu mat a góorgóorloo la te alxuraan kat waxuma di ko jàng noonu rek di wàcce di dem ak a ñëw waaye su fekkoon ne yittey nit ñi ka gën naa kawe kon li koy mokkal ci xeer wi dana bari lool ndax borom bi tabaraka moo ko yombal yàlla nee wala qad yassarna alquran li dikri fa hal min mudakkir yombal ko ci baat bi ñu mën koo mokkal yombal ko ci jëfin wi ñu mënees koo jëfe kon alquran lu yomb la moo tax fi mu nekk bu fekkoon ne mën ngaa góor góorlu ba bis bu set nga mokkal ñetti aaya pepp ñetti aay ci alxuraan nga di ko mokkal par jour boo amee juróomi at muy cinq ans yu tegal fukki weer ak fukki fan ak ñaar da nga mokkal alxuraan lépp ñetti aaya boo góor góorgóorloon ba def ko ñeenti aaya nag ci ñeenti at ak ñeenti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent ci ngay mokkal alxuraan kon nag naka la su góorgóorloo bay mokkal juróomi aaya wala su góorgóorloo bay mokkal sax far genn wàllu page ci kaamil bi wala muy mokkal aw page sax nag bis bu set kon laa shakk ne mokkal alxuraan doonu lu jafe waaye itte ji jox ko itte ji mooy faral di jafe ci doomu aadama yi bul fàtte itam ne alxuraan jamono yi nga koy jàng araf woo tudd wu ne bindal nañ la tuyaaba araf wu ne tuyaaba la te tuyaaba ji dañ la koy fulal fukk maanaam boo jàngee bismillahi rahmaani rahim loolu fukki araf la ak juróom-ñeent suñ la ko fulalee par dix kon kooku cent quatre-vingt-dix li ci ay tuyaaba ci bisimilah rahmaani rahim naka nag ki nga xam ne góor góoru na ba bis bu ne mu jàng fukki aaya wala bis bu ne mu jàng aw saar wala mu jàng ab xisib wala mu jàng ab jus la chaque ni tuyaaba ju baree baree baree bari la te ëllëg doomu aadama dana taxaw amug jaaxle ñi koy peeseel jëfam fekk benn tuyaaba képp moo ko manqué mu taxaw di xaar fan lay jële tuyaaba boobu wala muy séentu njéggalu boromam tabaraka wa taala ñuy àtte mu taxaw nekk ci miir ngir benn tuyaaba kon la chaque ne borom bi tabaraka wa taala yombal na mbir yi wàcce na yoon yoo xam ne ku ci jaar da nga gis tuyaaba yu bëree bëri bismillahi rahmaani rahim rek ñu bind la cent quatre vingt ci ay góor góorgóorlu itam ba tàggat sa bopp nag ci naafila yi jéem ko saxoo naafila yi nga xam ne moom la ñu tuddee raatiba mu yiñ gën a fonk mooy ñaari rakkaay fajar ñeenti ràkkaay yoo xam ne da nga koy julli lu jiitu julli tisbaar ñaari rakkaay yoo xam ne gannaaw tisbaar la ak ñaari rakkaa yoo xam ne gannaaw timis la ak ñaari rakkaa yoo xam ne gannaaw gee la loolu fukki rakkaa ak ñaar la yonent bi sallallahu alayhi wa li mu ci wax moo di amul benn jaam boo xam ne ab jullit la buy julli bis bu nekk fukki rakka ak ñaar yooyu ci coobarewu maanaam du farata lu dul borom bi tabaraka wa taala tabaxal ko kër ajjana wax dëgg yàlla jar na ko fukki rakka ak ñaar borom bi tabaraka wa taala tabaxal la kër defe naa ne ci xeeti jëf yi nga xam ne ñu ngi koy jëf ci àdduna ku ne woon saako yi di tege fii ku ko yanu yóbbu ko ca mbedd ma ñu tabaxal la kër kër ma saar wala fenn ci kër yi ba wëtu saako yi loo teertee a xëy ba dikkee da fekk ñeneen jiitu la fi ba yanu ko ak lu mu diis diis ak lu mu metti métti kon nag naka kër goo xam ne borom bi tabaraka wa taala la koy tabaxal ci àjjana la chaque ne Euh, jar na ko jariñ woo xam ne bu jéggi dayo la góorgóorlu ba dénkaane bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkoon Abu Hurayra nga jéem koo amal sa bopp lu baax la daf ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dénk na ma yett yoo xam ne duma leen bàyyi mukk du ma leen bàyyi mukk ba ba may faatu bu jëkk bi mu ne mooy woor ñetti fan ci weer wu nekk am gën gaa néew beneen bi mooy julli waxtu yoor yoor beneen bi mooy nee na bala maa nelaw witr bala maa nelaw def sama wit witr koo xam ne boo nelawee doo mën a jóg def ko door a tëdd moo gën xam nga ne Abu Hurayra dafa doonoon saxaabi yi boo xam ne ci sàkku xam-xam la nekkoon di ci sonn coono boo xam ne guddi ak bëccëg takkoog yonent bi di jàng ba tax na mu amoon fitna yi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàmbat ko ne ko man su ma tëddee te witru ma bëgg a jóg ci li mujj ci guddi gi rek du ma mën a jóg mu ne ko bala ngaa witr bala ngaa tëdd defal sa witr koo xam ne nag wóor na boo tëddee mën ngaa jóg ci asulusul axiir kooku moom laa chaque ne moo gën bu la neexee mën ngaa tëdd ba waxtu woowu jot nga jóg def sa góor lu itam ci julli yoor yoor julli yoor yoor moom mu tuddaale foofu lu am solo la yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi misaal borom bi tabaraka wa taala mu yombale tuyaaba ni mu yombale tuyaaba muy wax ne tuyaaba ni mu mën a baree dafa dem ba àgg ci mel ne sax sa yax yi ni mu baree ci sa biir cër yi dafa mel ne tuyaaba yi noonu la bari gi noonu la demee ndax nee na boo sàbbaalee yàlla muy subhaanallah am nga yoolub ku sàkk sarax boo ne alhamdulilah am nga yoolub ku sàkk sarax boo ne laa ilaha am nga yoolub ku sàkk sarax allahu akbar am nga yoolub ku sàkk sarax boo diglee lu baax am nga yoolu sàkk sarax boo teree lu bon am nga yoolu sàkk sarax mu ni loolu lépp nag li muy bari bari bari am na lu ko mën a wuutu am na lu ko mën a wuutu loolu mooy lan mu ne ñaari ràkkaay yoo xam ne da koy julli ci waxtu yor yor kon kooku lu màgg la du lu woyof jéem a saxoo itam nag julli guddi donte ñaari rakkaa sax ngay jul jóg julli ko loolu baax na ci waxtu wi nga xam ne mooy asulusul axiir muy ceer bi mujj ci guddi gi ndax foofu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne borom bi day wàcc ba ci asamaan si gën a jege suuf di wax ne kan moo may ñaan ba ma wuyu ko ana kan moo may woo wala mu ñaan ma ma woo ma ma wuyu ko kan moo may ñaan ma jox ko ana kan moo may jéggalu ma jéggal ko kon waxtu la woo xam ne waxtu wu tedd la waxtu wàccu yërmande la bokk na ci yi lay dimbali itam nag ci mën a sax ci jaamu yàlla mooy tànn àndandoo lu bare bare bari ci luy gàllankoor nit ñi moo ay góor lañ wala ay jigéen di leen tee ci seen wàllu imaan ak seen wàllu diine mooy ay àndandoo ndax àndandoo joo xam ne ju baaxut la moom kooku day yàq diine kon àndandoo ndooy dañ leen di tànn moo tax dañuy wax ne àndandoo yi ñett la am na ci ñoo xam ne borom diine lañ ñu baax lañ ay toppkati yàlla lañ waaye am na ci ñoo xam ne ñu sàggan lañ ñu bon lañ ay moykati yàlla lañ am ci ñoo xam ne bëgg nañ lu baax waaye dañoo sàggan bëgg nañ lu baax waaye dañoo sàggan ñett ñooñu ñoo am mu ne ki nga xam ne toppkatu yàlla la te baax boo ko amee tëye ko bu mu la rëcc téye ko bu mu la rëcc nga xam ne nag moykatu yàlla la ku sàggan la ku bon la nee na kooku coupeel sa relation sa digganteem ak moom daggal sa digganteeg moom waaye nee na nag bàyyi fa tuuti loo xam ne xëy na nga man cee jaare ba yàlla baaxee ko mu mën a ko bul ko dagg-dagg goo xam ne day àgg ci sax bu la nuyoo nag bul ko fay déedéet waxu kay bàyyi fa dara tuuti loo xam ne da ngeen ca mën di jëflante ndax nga am foo mën a jaare ba xëcc ko mu ñëw ci njub àndandoo ji nga xam ne nag bëgg na lu baax waaye dafa sàggan nee kooku téye ko bul ko ba moom kooku téye ko ndax càgganteem googu nga mën koo jàppale ba mu génn ci ginnaaw bëgg na lu baax kon mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk-dénk suñu bopp wattandi ko delluwaat ci caaxaan delluwaat ci mooy yàlla delluwaat ci biddaa delluwaat ci lu tekkiwul dara gannaaw boo xamee ni coonub ramadan jàll na kenn yeesul kët kenn yeesul nit ñoo xam ne ci ramadan rek lañuy ñuy xam seen borom bu jàllee jeex na xamatuñ ko bu ba ramadan dikkati kon nit ñi nii nga noonu lañ bëgg nga continuer mel noonu di leen dénk di dénk suñu bopp li des ci weer wi akus néew ñi bañ koo xeeb naa am na kuñ nangulul woon bañ tàmbalee ba tey waaye ndekete liñ ko nar a nangul ci lii fi des akus néew foofu la xéewalam nekk ndax jaamu yàlla bi day jaamu yàlla rek di am yéene di rafet njort waaye lañ ca nangu ak lañ ca nanguwut loola boroom moo ko xam li ci des mën naa doon sax xéewal te bis bu yaakaaru mi ngi nii muy bisub tey bii ak guddi gii nu jublu la chaque ne ci fukki fan yi mujj ci weeru koor wi ci la bokk kon kooku benn tiraanga la teyit guddi gi ci guddi yi tóol la bokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laylatul qadar ci genn guddi ci guddi yi tóol ci lay nekk yi nekk impair wëlbati ku nekkaat bisu ajjuma kenn ku nekk xam jagleel gi borom bi tabaraka wa taala defal bisu ajjuma te bisu ajjuma waxtu ajjuma woowu ci la nekk muy waxtu wu tuuti woo xam ne ku fa taxaw di ñaan loo ñaan borom bi tabaraka wa taala defal la ko kon nu jàpp ne bis bu màgg a ngi nii guddi gu màgg a ngi nii gun jublu lépp lu nit ki man ci jaamu yàlla ak dab dabaatal li ko faatoon ñu jéem a góorgóorlu ci loolu lu ama amaam solo lay doon allahuma waffiqna lil amali salihat waxul baynana wa bayn almubiqat wa taqabal minna salih al amal wal ictiqadat wal aqwal wala tajcal addunya akbara hammina wala mablaga cilmina ولا إلى النار مصيرنا ولا تجعل اللهم هذا آخر رمضان نصومه وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة